Bienvenue sur Salam Vision. ñu sagal nga ñu lu ñu bëgg defar nga ñu suñu soxla fajal nga ñu suñu yaakaar bi yaay suñu ndaanaan jidda caara yoo la am yaay suñu ndaanaan jidda caara yoo la gëm yaay suñu ndaanaan Modou Gueye am nga fit am nga jëm yaakaar Modou Gueye Modou Gueye candidat moo tax Macky yow la tànn pour nga doon suñu maire am nga fi te amoo caaxaan waa caara ñoo la bëgg te doon suñu maire bu dul yow du doon keneen ñun yow la ñu bëgg yaay suñu wéruwaay xale mag bëgg nañ la ñun yow ñu bëgg koo wax mu ne moo du doy gudd faral nañ la nag wér gu yaram yàlla mottali nga jàngam suñu xob yow la tànn ko soxla boo la ko nga fajal ko nag dara ñu suñu mairie wolu nañ la lu mu métti métti duñu daw dañuy xel si kanam mu lépp lu mu dem ne li bëgg dëgg moom mooy kan Modou Gueye Modou Gueye eh wàccale ki ngeen bëgg dëgg moom mooy Modou Gueye Modou Gueye eh sama gi dëgg yaay suñu ne bëgg doo tas yaakaar ba si di ñu sagal nga ñu ñu bëgg defal nga ñu suñu soxla fajal nga ñu suñu yaakaar bi suñu ndaanaan di dacar yoro am suñu ndaanaan di dacar yoro gëm suñu ndaanaan moo am nga fit yow la a pour nga doon suñu meer am nga fi te amoo caaxaan waa Thiaré ñoo la bëgg te yaay doon suñu meer bëgg yow di doon keneen ñun yow la ñu bëgg yaay suñu wéruwaay alek mag bëgg nañ la ñun yow la ñu bëgg koo wax mu ne moo du tey bëgg faral nga nag wér gu yaram yàlla mottali nga jënd ndaw la ko nga fajal ko nag dara ñu suñu meri la lu mu mu xam ne li bëgg dëgg आते हैं आपरे इंशाल्लाह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 moom mi nga xamante ni dara tëwu ko lii nga xamante ni moom lañ dëgmal yal nañ ci yàlla defal ndam ndam boo xamante ni bu jéggi dayoo lay doon bu kawe suñu njort bu ànd sedd guy ñu ngi ziare ñëpp waaye wax ci kàddu mouvement taxawu sa gox waaw soxna yeeg gars yi ñu ngi nii buñ ci Babacar Seye Serigne Abdou Ndiaye ak Cheikh Diouf ak ñeneen ñeneen ñeneen jigéen ñaa ngi nii ñoom Ndeye Ane ñi ngi fi ñoom Buri Yacine ñi ngi fi ñoom Soxna May ñi ngi fi ñëpp a ngi fi. jërëjëf kon mouvement boobu ku ñuy wax Ablaye Seydi moo ko jiite moo bëggee tàccul ma ko bu baax Ablaye Seydi ñun ñëpp xam nañ ko ñu doomu Aynu Maan juddoo Aynu Maan yaroo Aynu Maan màggee Aynu Maan ba pare lu gën a garaaw ci moom ñu bëri dañuy dem dispensaire pour pour juddoo fa man ak keneen mais moom kër yaayam la juddoo moom gërëm la juddoo moom mu nekk jàmbaar torop nekk koo xamante ni liggéeykat la ñun ñëpp ñu ànd nag di jàppale suñu leader principal mi Modou Gueye wax dëgg yàlla mouvement bi yàgg naa fonctionné mais fonctionnement bi ba mu gënee am doole ba ñu ñëwee ci ginnaaw Modou mii la waaw ragal féete nag day xañ a wërsëg te ñu yàlla dogal nañu ñu ngi sa ginnaaw tey ak suba ak ginnaaw suba di la ñaanal aussi li nga xamante ni moom nañu dëgmal yàlla nga ci am ndam te incha allahu di ci am ndam bu ko defee mouvement bi aussi dafa am ay groupement comme ni la ko waxee woon keroog ba nga ñëwee ziar si ñu di continuer di di rafetlu ziar boobu nga ñu defoon di kontaan tamit ci ziar boobu nga ñu defoon di la bëgg ci yow tamit ci ziar boobu nga defoon defaroon mouvement yi nag dafa am ñi nga xamante ni ñoo ko jiite te ñooñu ay mbooloo la ñu àndal mbooloo moo xamante ni wax dëgg yàlla bu jéggi daay la ñu ngi fii ci jotaay bi mouvement bi dina ci tudd ñeent femmes ñi nga xamante ni ay mbootaay lañu ñu yor nekk fii ci Aïnoumane waaye aussi balaa ñoo tudd ñooñu ñu ngi nuyu président waa Aïnoumane ndax wax dëgg yàlla ñun amuñu lu dul Aïnoumane amuñu feneen fu dul Aïnoumane ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye ñu ngi nuyu tamit suñu dëkkandoo yi di leen ci wax Medinatul Munawara di leen wax tamit Lansar di leen wax ñi nga xamante ni ñooy nekk Touba Pikine ak yëpp koo xamante ni yaa ngi jiite Caaroy kaw ndax tey Djidah Thiaroye Kaw moo aye tey Djidah Thiaroye Kaw moo aye Aynoumane ayewul wul Munawwara ayewul Lansar ayewul waaye Djidah Thiaroye Kaw moo aye kon ñu ngi bëgg ñu tàccul ñu prési ñaanal ko yàlla yàlla defal ko ndam mouvement yooyu leen ci tudd ñeent comme nu ma ko waxee ku ci njëkk mooy soxna Ami Maar mi ci mbooloo mi ñu koy nuyu am na mbootaay bu bëri boo xamante ne mi ngi ci ginnaawam du ma wax lim bi ndax xam ngeen yooyu ñëpp mbirum jigéen mbootaay yooyu du benn di dafay nekk wala ñaar kon lim bu am solo la àndal mbootu ci ginnaawam. la koy baal aussi même chose ñu ci jotaay bi moom it jiite mbootaay boo xamante ni wax dëgg yàlla ci nekk ci ay nit bëri na te ñoom ñëpp ñu ngi fii ci mbooloo mi. ñu ngi nuyu aussi Mintou Ba moom mi nga xamante ni mi ngi dëkk fii moom tamit mbootaayam bëri xam nga leen ko xam nañ ko comme ni ko ñeneen ñëpp xamee Rama aussi la même chose kon ñooñu jaadu na bu ñu ñëwee fii te bokk ci mouvement bi di dimbali ki nga xamante ni di jàppale ki nga xamante ni mooy suñu leader Modou Gueye yoon la bu ñu taxawee fii ñu ñu tudd leen waaye ñeneen ñi ñu tuddul ñëpp suñu xel ñu ngi ci yéen waaye mënuñoo lim ñëpp parce que temps bi mayewu ko. waaw doy na kon ni ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di wax ni Modou ñu ngi sa ginnaaw ñun mouvement bi ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale tey ak suba yàgg nañu nag nekk ci terrain bi yaakaar naa ne ñu tolloo ñeenti weer bu ma juumul ñu ngi def di réunion guddi ak bëccëg semaine bi lu mu gàtt gàtt dinañ ci am ñaari réunion yoo xamante ni comme ni ma ko waxee woon keroog de 19h à ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ay jigéen la ak i góor bàyyi seen yitte yëpp ngir président Modou Gueye dama bëgg ñu tàccul ñu ko ndax jar na ko. sa yar ak sa teggin moo tax ñu bëgg la ba tey jii te loolu képp koo xamante ni daan nga dem stade di ko di ko seetaan war nga seede loolu ci moom. mu nekk nit ku yaru nit koo xamante ni ku bëgg jàmm la nit koo xamante ni fair play la kon maa ngi guddal ndax am na kàddu yu ñi nga xamante ni dañoo war a jël seen wàll en tout laa dans l'ensemble sant nañu ñëpp na ñu ñëpp ñaanal nañu ñëpp yàlla ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam incha allah dimanche bi soobee yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy gagné ñoom ñoo ma bëgg man ma bëgg leen ñu bëggante muy ànd bu yàgg nag mat na fan at may ànd ak ñoom xooluñu lu ma am xooluma lu ma ñàkk yàlla moo tax ñu bëgg ma ma bëgg leen samay rakk rek fi ak samay mag ak samay xarit kon sama wax sax lu ci mën a bari xam nga lu ma bëgg di sant Gora Fall mii gis nga Gora Fall mii seetaanuñu benn yoon keroog bi ñuy fële ne damay jëli ay paas mu ne bu leen jëli paas ci Modou Gueye toog leen dinaa leen jox ay paas ñu yóbbu suñu ñeenti Njaga Njaay ak suñu ñaari super ak suñu ñeenti taxi moom la ñu yóbbu keroog bi mitin ba te mënoon na nag ma cee bañ a fekk waaye nag moom moo bëgg Modou Gueye moo moo moo Gora Fall moo bëgg Modou Gueye dañuy toog ne ko dañoo nag tey kay yow Modou yow Gora Fall kaay tey moom nangam la bëgg nangam la bëgg gis ñu Modou Gueye yow la gis mu làmb poosam defal ne du ñu bëgg ñoo ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla Modou Gueye day moom sax ma waaye man maa ko bëgg man maa ko bëgg pire xale bii man maa ko bëgg gis nga su ma ko gisee damay kontaan sama xol day sedd man maa ko bëgg bu ma ko xamee ba léegi man maa ko bëgg séntu ma dara dara dara waaye si yàlla yàllaa ko bi sama xol bi dugal ko ci may ñaan nag ci kàttanu yàlla yàlla noonu yàlla may ndam bu heure bii dimanche yàlla na nu bi ñun ñëpp ndax moo duggee mii ku war dem kër nag a ah, ñu la doon mitin tey mu ne la ko ñu mitin nga ne Pape Pape Daouda Pape Daouda góoram mooy mitin moo duggee de mitin mu ne moo duggee ki fi indi soble ki fi indi suukar ki fi indi li ki fi indi li ko di fi indi laa barki baraag moom sa baraag moom moo duggee moo ko baraag moom du ñu tiit du ñu ragal ñun ñoo ko moom bu soobee yàlla yonent bi Pape Daouda nag démb bi ma woowee téléphone ak naan kuy Pape Daouda kuy Pape Daouda xam naa la bu baax ndax sama kanam nga nekk xale ba nekk mag yàlla yàlla na yàlla jàppale ñu ànd ànd bu rafet man de képp ku ma àndal dinaa ànd ak yow ànd gor man képp ku ma àndal bëgg na maa ànd ak yow ànd man du ma ànd ànd nii damay ànd ànd nii rek ma ñaan na yàlla sunu ànd bi yàlla bu mu yàlla bu ci dara dugg yàlla bu ci seytaan dugg yàlla boole ñu ànd ba heure dugg dimanche ñu fal sunu maire bi ci barke Seydina Mouhamad nga doo ñu suñu soxla a nga ñu suñu yaakaar bi yaa suñu ndaanaan di de cara yoo la am yaa suñu ndaanaan di de cara yoo la gëm yaa suñu ndaanaan moo duggay am nga fit am nga jom te yaakaar moo duggay moo duggay eh. candidat moo tax Macky yow la tànn pour nga doon suñu maire am nga fi te amoo caaxaan waa caara ñoo la bëgg te doon suñu maire bëgg yow du doon keneen ñun yow la ñu bëgg yaay suñu wéruwaay xale ak mag bëgg nañ la ñun yow la ñu bëgg koo wax mu ne moo du doy gudd faral nañ la ak wér gu yaram yàlla mottali nga jëpp dangam suñu xol bi yow la tànn la ko nga fajal ko na dara ñu suñu mairie wóolu nañ la lu mu métti métti duñu daw dañuy xel si dara xam nga lu mu demee bëgg dëgg moom mooy kan Modou Gueye Rasul jërëjëf Serigne Touba Xaadim Rasul maa ngi ñaan ko wax jërëjëf Serigne Touba Xaadim Rasul yal na la Serigne Touba ram ëllëg. ragal péete day xañee wërsëg te ñun ragaluñu fi ñu féete diine lenn képp la wiiri wiiri jaari ndaari cëppaandaaw ga Seydina Muhammadu Rasulullahi alayhi salaatu wasalaam la dañ ma bett nag moo tax xaw ma lu may wax parce que bokkul parce que ki ñu ñëwal mi ngi koy wax sama rakk la du sama rakk de Pape Ndiaye Papa Ndiaye da Daouda mii du sama rakk sama xarit la man may moom moom mooy man li ma lay wax nii mbooloo mi taxul ma koy wax góoma ku yàlla bind Serigne Touba Khadim Rasoul rek laa gëm. Alaaji Cheikh Oumy Mbacké mu Serigne Falilou mooy sama wasila baal leen ma tuuti rek li may wax gannaaw dañu ma bett wax ma mën na maa wax xam naa lu ma wax am naa lu ma wax waaye ci li ngeen li ñu ne ajowu ko ndax nag ku wéet ak sa bàmmeel di ci xool xool rek ko xam mais dama ne Pape Ndiaye kii du sama rak yàlla dogal na ñoo bokk benn ndey ak benn baay alhamdulilah mais du sama rak sama xarit la wax bu leer laa wax olof laa wax mais kii suma copain la dama yëg sama téléphone di ko woo xëy na jàpp wala mu ne ci programme mooy tax ma du ma wuyu moom Modou Gueye waaye lenn rek laa laa ci bëgg wax mooy lu mën a am lu mën a xew ak lu mu ci mën a doon nañ xam ni ñun ñoo dëkk jidda caaroy kaw ñun ñoo dëkk jidda caaroy kaw man sama buntu suñu buntu kër benn bunt bi dafa ubbi koo ay numaan benn buntu bi ubbi koo lamsaar kenn mënu ci dara jàmbaar bi ñuy coow yow nga def fi lu ne suñu biir kër la juddoo te tey bëri nañuy ñuy fubal jàmbaar walla ñu jaar jàmbaar te xamuñu li xew suñu biir kër doyen Jabel Sarr ñoom grand Ibrahima Diallo ñoom Salam Diallo ñoom Père Kana Dako ma sew ancien directeur technique de l' équipe nationale du Sénégal ñii ñoo tas Flamingo yi ci jàmbaar li may wax xale bu juddu quatre vingt quatre xamu ko. fu ma kon président lenn rek laa la bëgg a wax lu mën a xew. lu mën a aw lu mu ci mënti doon ñun ñoo bokk suñu jidde caaroy kaw adduna nag dara amu fi solo li fi am solo leen rek la muy ixsaan nañ rafetal lépp mu rafet ndax nit mënu fee def lu dal lu rafet lu rafet rek fi am solo Modou Mati ñaa maa ngi lay nuyu dama laa mere président Modou Diop macha allah mboolem délégation bi mboolem ñi wuyu si Pape Daouda ñëpp kenn ku ci ne na jàpp ci xelam ni wuyu siwul Pape Daouda wuyu siwul président moo Gueye waaye boppam la wuyu si ndax lamsaar ay nu maan jidda caaray kaw medinatul a gunaas fu mu ci mën a doon jidda caaray kaw kese la yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ci dara yi yoon ci balay saatu salaam barkeb cheikhul di bëgg nag ngeen fay ma nuyoo voilà waaw samay wax tey du gudd ndax xëy na am na ñoo xam ne buñ ma gisee ma taxaw fi ay rey dana leen jàpp rawatina ñi bokk ci ñun ndax fan yii yëpp may gis mooy de mooy sécurité waaw ànd président fu mu dem rek ñu ànd fa ak moom bañ ku ko gaañ bañ ku ko lor bañ ku ko sonal ndax ñun suñu mbir noonu lañ koy doxalee maanaam bu nu xasee ba ne na nag yow yow yaay mujj di sonn ci ñun yaay mujjee doyal ci ñun ndax yaay mujjee tayal ci ñun ndax lu ñu def dañ koy def ak engagement luñ koy def duñ ko def ak demi mesure dañ ciy dem ba jeex lii nag moo duggee moo ñu ko sant ndax moo ñu wax ni laay képp koo xam ne mi nga Aylimane nekk lan Lansar nekk Médinatul Munawwara tamay jàppale bu la wóolee wuyu si ko képp koo xam ne dafa jub pour liggéey ak yow bu ko tànkamlu képp koo xam ne dafa jub pour jàppale man Modou Gueye na mel ne yow lay jàppale la waral tey bokkuñ ci caravane bi ndax bis bi lañ doon taxawal ndax bi ma ko dégg waxee daf na ma laaj dañ bëgg a organiser benn mitin boo xam ne dañuy jéem a ut date jeudi wala vendredi suñ ko mënee am rek ñu daal koy taxawal mën na ko def loolu ñun ñu sax dafa newoon suñu xel mais comme Aynoumane nga dëkk man ma dëkk ay Aynoumane ngay def fii may defee fee mënta ne te ginnaaw Aynoumane da nga ko bëgg boole mu doon benn kon dañuy jël lépp ñu def ko benn mu ne loolu mu gënal ndax loolu lañ war a def mu ne ma nag léegi loo ci xalaat parce que man dama ko bëgg a def sama bundu kër ma dëkk Aynoumane man ma ñuy ànd di jàppali Modou Gueye Modou Gueye dafa ci bopp koñ bi ma ne ko da nga koy génnee ñu yóbbu ko ca bayaal ba mu ne ma waa laay bayaal ba mu ne ko bu dee nit ñi la bu ko bul xalaat bu dee mbooloo la bu ko xalaat ak lu mënti doon nen dem ca bayaal ba ñun buñ ko mënta feesal Modou Gueye bu ñëwee dana ko feesal te looloo am tey kon moom ñu koy sant bu baax moom dev parce que lii tamit liggéey bu rëy la du woon liggéey bu ndaw ndax ni ko sànq Oustaz Cheikh Kébé waxee da nga ko président ndax oustaz la donte kàddu yi mu wax leer na neex na mais oustaz Cheikh Kébé ñu koy sant moom bu baax di ko gërëm bu baax ndax liggéey bu rafet ndax ni ñu ko waxee noonu la demee euh, ñeenti weer ci ginnaaw boobu fekk ne ñu ngi wër ay numaan di def porte à di waxtaan ak yi di waxtaan ak mouvement yi groupement de famille kenn ku ci ne dem nañ ba sa suufu tànk waxtaan ceeg yow xamal ne dafa am leader bu nu bëgg a jàppale te bu nu sañoon ay numaan métti mu war a lansaar ñëpp ànd jox ko loxo ndax li wara loolu mooy lolof njaay naan képp koo xam ne dangay ngay tëggaani dafa fekk sa dëgg dafa dafa tëggul ñun Modou Gueye leen am Modou Gueye leen am tey Modou Gueye leen am ëllëg te li waral loolu mooy tey jii bu nu gàtt xel jàppoon ba jàppuñu waa tey jii ñun kan lañ war a jàppale bu nu jàppale Modou Gueye mais kan lañ war a àndal bu nu àndalul ak ndax kan lañ war a mën a fréquenter muy neex wala muy saf ku dul Modou Gueye ndax yéen sax day jur gàcce bu newee ci koñ bi ñu ne sunu doomu gox moo am na mu soxla ñu ne lan la soxla ñu ne mairie ji de caaray kaw mu ñëw di dagaan askan bi waa ndax ñun war nañ mën a tànkam lu loolu ndax ñun tey jii du sunu sag Modou Gueye dem toog ci mairie bee ñu ne ñan ñoo ko far ñu ne doomu ji de caaray kaw ñu ne ñan ñoo ci bénéficié wu ñu ne boo namee xam ñan la ñu ne xoolal waa Lamsaar xoolal waa Médina Mororo xoolal waa Aïnoumane wax ñu ñeneen ñi nag ndax ñeneen ñi dañ ñu dañ ñu dafa am benn engagement bu ñu jël vers ñun ndax fi Modou Gueye jaar ñëpp ñaan fa moom benn ñoom ñooy jël pay as nee na waa ñetti mbaar ñooy jël pay ndax ñun dana nangu lool waa zone une ah dama lay lu leer zone yi boo leen boolee yéen quatre zones yi zone une du seen morom. as bàyyi naa léegi yeneen quatre zones yi ñu téye zone une non leneen la ñuy waxati li ñuy wax daal duñ ko guddal ndax li jaroon wax yëpp gars yi wax nañ ko te xam naa ne def bu jëlee lépp lu ñu waroon mottali moom dana ko mottali li ñu leen yëgal daal mooy kontaan nañ ndax woote nit ñi wuy si la yombul ak waxtu biñ ko defee te boo boobu léegi yéen a ngi fi toog yëgu leen ni sedd na yëgu leen ni toogaay bi métti na yëgu leen ni jafe li ngeen yëg daal mooy seen leader moo leen di seeti war leen a sagal ngeen bàyyi seen yitte yëpp daal di ñëw taxaw. Minthiou Ba ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay seen ci ginnaaw da ngaa waroon jël parole mais da ngaa tardé mais li am solo ba am solo daal mooy école bii ni ko Ousmane Ndoye waxee démb déeb wax ko Pape Faye wax mooy école bii buñ koy gagné. duñ ko jéem a gagné à quatre vingt pour cent soxla ñu quatre vingt cinq cent soxla ñu quatre vingt dix pour cent soxla ñu quatre vingt quinze cent cent pour cent la soxla. jàngale ci gox bi rek ak na ñuy voté na jot ngeen ci xam ngeen ni ngeen di voté nan ngeen di voté ak ban heure ngeen di voté teel leen a yeewu avant midi ñu tàggoog waa ji comme ni ko président waxee ñu ngi daan suñu kàddu merci président merci sama xarit yow du ma tudd sol mais sama partenaire nga mais merci ñi nga àndal ñëpp waa sécurité bi président yooyu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nuyu ñëpp alhamdulilah Maïda a vous la parole. baax ma jóge kër ñoom sépitaire ñëw dëkk kër euh, paa bi sant Fall Ndiogu Fall ñu dëkk day xale bu yaru xale bu am yar am na de yaa ma jëkk a sépitaire ma jëkk a jox suukaru sport ak ak ak ceeb ne moo duggee leen ko jox kon ñoo ngi ni ñaan ci barkeb Seydina Mouhamed li ngay wut yàlla na ko am man nekk tedd rek laay dundee waaye nag bu ñu dëkkee di def yu baax ñu di ñeeñoo dinañ ko wax kon doo tilim julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur di sant suñu yaay yi nga xamante ne teew nañ fi di sant waa Cité Barak di sant waa Lansar di sant waa Médinatul Munawara gis nañ délégation Ousmane Ndoye maire Fatou kontaan nañ ci yow di sant sama waa kër bopp ñoom faatu maa ngi leen di ñoom Ami Lam sama seex na bu jaase maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu suñu doyen Seydou Lam mu ngi fi woon sànq waaye comme dafa guddi dañ koy kii di nuyu aussi suñu délégué doyen Fall di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd suñu borom yëkkati ko fëgg boppam moo du man waruma woon wax tey ndax li gars yi waroon wax yëpp wax nañ ko dama signé ak yow pat comme ni ko lay waxee ñu ne dañuy dajale ay numaan def ko mu doon benn lay su ko neexoon ne moom a mag waaye bi ñu dalee xamante ba léegi mu jaar ci soodo top mii ma koy nuyu au passage mu nekk ku sonn ci man chaque jour moo may woo téléphone chaque jour mooy ñëw sama kër laay benn yoon laa mës a dem këram dama bëgg ngeen tàccul ma laay bu baax baax baax baax loolu dafay wane ne Djiddah Thiaroye Kaw moo ko ñor loolu dafay wane ne unicité ay numaan moo ko ñor donc nit su melee noonu yor pusoom di ñaw su ay nit toogee day baax ñu wax ko beneen bi ñuy wax mooy dañ lay sant yow président Modou Gueye bu baax a baax a baax parce que xam nañ ne sa emploi du temps chargé na trop mais teewul ñëw nga di nuyu le coordinateur de l'APR monsieur Mamadou Diop ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax moom suma frère bu bopp la moom xam na man xam naa APR moo ñu boole waaye tey APR mënatuñu tàggalee di nuyu le PCA Omar Sow ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax moom aussi mu nekk jàmbar ci gox bi nekk ku ñu fonk ku ñu yëg ku ñu nawloo donc suñ la gisee fii aussi dañ ciy kontaan di nuyu suñu doyen yeew yu nekk si ginnaaw ñoom Modou Mati ñoom Hamidou bi jàlloo le chargé de mission à la présidence Ousmane si ñoom Gayel président Ndeye Niang kontaan nañ ci yow njaga doyen Bawar damay bañ a juum damay bañ a juum ah sànq dafa am wax bu ma bett parce que Samir waru woon bokk ci orateur yi xaw ma nan la ko Papa Ndiaye négocier noonu ba mu taxaw wax sama yaay day faral di wax naan su seen defee dara man maa koy protéger tellement que man ak moom approche bi ñu am di leen seedeel ne sama mag la mais man maa ko bëgg musum musuma def lu ma yëg lu mu yëgul musuma def loo xamante ne waxtaanuma ci ak moom musuma def loo xamante ne tàgguwuma ko activité bi dama ko démb jotuma ko ma yónnee ko message tey la ko doo a gis dafa amoon lu mu waroon def mais dama ko ne soo génnee kër gi di nga xam te pourtant sama mag la kon dama bëgg ngeen tàccuwaatal ma ko bu baax a baax a baax président dama la musoon wax ne la école 12 su la neexee bu fi campagne te wax boobu ma la waxoon démb tey laa ko gën a dëggal Mamadou Diop élection yi ñu mujjee dem maa ko woo ne ko gañe naa école douze su ma nee gañe naa ay numaan laay wax ndax du woon man kese di nuyu au passage grand Ousmane Ndoye mi may woo sànq rek moom aussi mu nekk jàmbaar di suñuy kilifa di koo xamante ne aussi dañ ko naw dañ ko respecté loolu ci commune bi gis nañ délégation bi mu fi yónnee njaago yi comme njaago yi moom ay xaritam lañ ah ñu ngi noonu mais li ma leen mën a wax rek mooy yéen jigéenu ay numaan Modou Gueye dafa am loo xamante ne daf ko diggee ak ñun su ngeen ñu xoolee xam ne ñun duñu ay cuune lan ay numaan lañ juddoo yaroo fi màggee fi suñu boroom teral ñu fi ñu nekk ay cadre nekk ay chef de service nekk hiérarchie A1 comme Modou Gueye mii mais suñu nangoo ànd topp ci ginnaawam c'est parce que am na lu tax lañu ñam nag ñun ñun ñii xam naa ñeneen ñi dañ koo ñamagul waaye suñ ko ñamoon sax moom Cheikh Dieng dina ñëw ànd ak moom. umpule leen ne baawaar bee cadre la président Omar saw bii cadre la Mamadou Diop mooy le coordonnateur de la l'APR te ñoom ñëpp dañoo nangoo rangé wu ànd ak le président Modou Gueye grand suba suñ la gañeelul jidda caaree kaw man damay bàyyi politique. suñ la gañeelul école douze bii. man damay bàyyi politique ndax xam naa ne mënatuma def leneen lu ëpp loolu xaw ma ndax dégg nga ma am déet muy école 6 di CM bi di école 21 di école 12 comme ni mu ko waxee rek di ko laay waxee sànq benn zone une moo mën ñeenti zone yeneen yi des léegi nag comme que bañ nañ dama leen di lancer défi ñun on va gagner laay nañ wàññi zéro virgule zéro un ñu gagner à quatre vingt dix neuf pour cent ñu xool ñoom lan lañ mën ah. jërëjëf. xam nga olof Njaay day faral di wax naan garab bu lu si tudd la ker xam nga ki nga xamante ne dañ koo jël yóbbu ko ci mairie bi mu ne leen soxlawuma salaire u mairie boobu dama koy jël déposé ci ko banque ba mu nekk garantie pour ñu mën a lever ay fonds yoo xamante ne dañ koy financer jigéen ñi ak xale yu góor yi Modou Gueye mii toog loolu la def ñu ne ko Modou ñun suñu xale yi dañoo am problème mu jàng ndax ku waroon jàng 900 heures ñu koy jàngloo 450 heures man je me bi ñu nekk xale. CP C1 dañ doon commencé làkk tubaab am naa sama jarbaat buy def CM2 mënul wax phrase bu jub Modou nga ñëw nga ne dootuñu jàng double flux dañuy jàng en temps plein pour mën a am pouvoir bi nga xamante ne moom moo war a mën a tax. suba ñu dégg leen ci réew mi ñu ne ko ak lan mu ne dinaa defar ay école yoo xamante ne ñey jàngee Mermoz ak Almadi suñu doomu jidde caaray kaw yi duñ leen ñee parce que nag sooy topp nit day baax nga xam programme bi nga xamante ne moom la tëddal ñun topp ñu Modou parce que dañoo gën a jantal ndax nag même su jantalee ñun jantal nañ loolu la yàlla dogal topp ñu Modou ndax dafa boo ëpp ñu Modou ndax dafa njool ndax su njoolee itam ñun gàtt nañ waaye nag <laughs> mooy loolu. mais dañ ko topp parce que dafa am ay ambition ànd si ak ay nit yoo xamante ne maanaam seen xam-xam dafa jéggi dayo ñu toog ficeler un programme bien fait bien déterminé doon toog de minuit à sept heures du matin uniquement pour bind programme boo xamante ne mooy liy yokk Djidah Thiaroye Kaw ñu ne ko Modou ak lan mu ne PSE. bi nga xamante ne moom la président mag Sall def pour le Sénégal dama koy délocaliser indi ko tuddee ko PSE local pour Djidah Thiaroye Kaw. grand mënuñu am candidat bu la gën mënuñu am candidat bu la gën duma wax sax candidat mënuñu am futur maire bu la gën. guddi na kàddu yu bëri na dañuy santaat ñëpp rek di gërëmaat ñëpp di la renouveler waat encore une fois notre confiance. notre engagement et notre détermination à t'accompagner waxuma la mairie Djiddah Thiaroye Kaw mais ñun suñu vision suñu vision ah ñu vision ci yow dafay dépasser ministre dafay dépasser raawu DG dañu bëgg Sénégal doomu Djiddah Thiaroye Kaw jiite ko te kooku kenn lañ ci yaakaar muy le président Modou Gueye maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp jërë ngeen jëf merci Pa Daouda kaddu yi rafet na allah yàlla nan la yàlla dollee fay sànq gi la way daf maa jooyloo way koom way way wu way ñii bokk ngeen de yéen naa ni jàpp leen si seen ñaari naan Mamadou Gueye am na way de bi lay way man damaa yëg Mamadou Gueye. kon ci biir jawaat naa man daan xam ni Mamadou Gueye bàyyam lañ ko fayee. doomi kër gi piir la. billaay sa messi laa koy maamam fukki fas ak ñaar la may sama maam. wenn fas su nekk jaam la ko boole. Mamadou mii gar mi la de. ah. Mamadou Gueye. Mamadou mi waral. tàccu leen lii. dafa ke lii. li daal ku dawul yaramam. sa yaram du daw. nga ni nga juddoo màgge ni nga màgge jafe xoolal bay am na sikin nagay kilifaam bu dalee mu dal xoolal yóbbu baal soo leen jàppatee ni ñafal ñafal. wax leen kon bu leen bàyyi Modou boo leen jàppatee ñu ñafal ñafal xoolal yow bu leen baal soo leen jàppatee ni ñafal ñafal ah xoolal yow bu leen baal soo leen jàppatee ni ñafal ñafal fii ci kër président Mbaye Sylla jaadu na campagne bi tëjoo fi fii ci kër président Moussa Bey jaadu na campagne bi tëjoo fii Pape Daouda jërëjëf bu ñëwee kër délégué Abdoul Aziz Diagne sama seex sama xarit mbégte lañ fiy duggee waat suñu duggee kër Ablaye Seydi mbégte lañ fiy ñëwee suñu ñëwee kër Aminata Ndiaye xol bu sedd lañ fi yegsee waaye nag suñ ñëwee kër Cécilia ñëw kër bébé Korea ñëw kër Sofia loolu mbégte munu ko weesu Amimar kontaan nañu no koy baal ñu leen di ziar ñu ngi nuy waa Aynoumane ñu ngi nuy waa Medinatu Munawwara yëpp Samir day da nga doon làqatu waaye Pape Daouda feeñal na la kon bi kontaan nañu waaye ñii leen fekk si tey jii kontaan nañu ci seeni dayo respectif tey yàlla moo def ñi taxaw ci président bi taxawandoo fi bi campagne bi commencé ak léegi néew na lool njabootu coordinateur Mamadou Diop dans son entièreté booloo ci benn jotaay te moo na jafe woon na ñu am jotaay bii te ñun ñëpp kenn ku ci nekk mi woon ci waaram di liggéey xam naa grand Ousmane su nekkoon fii xolam dina gën a sedd ndax tey le coordonnateur Mamadou Diop sama seex sama genn wàll dafa taxaw ci wetu ay naataangoom ci wetu ay xaritam ci wetu ñi mu bokkal liggéey bi yëpp Alassane Mbawaar mi ci ginnaaw le PCA Omar Sow mi ngi ci ginnaaw Hamidou Ndaw mi ngi ci ginnaaw Gayel Ñaa mi ngi ci ginnaaw Mbodou Mati Ñaa l'infatigable sama loxo ndeyjoor sama loxo càmmoñ ak yeneen responsable yi nekk yëpp présidente Ndeye Niang taxaw fi taxawaayu maire Sophie Ndiaye Sissoko aji code la Lyon taxaw fi taxawaayu cadre yu jigéen yëpp ñoom As Diallo ñëw toute l'administration de la coordination ñëw na Ndiaga Diop ñëw na moom ak seexam Ibra Diouf nga xam ne dañoo seexoo ba bi ñuy takk ñaareel ñoom ñoo takkandoo daanak usmaan Diop mi ngi fi ñoom Bébé Diallo ñoom ñëpp tey ji daje nañu fii aca ba tey nag ñu amaat gan ndax bi ay sa di ñëw dafa am keneen koo xam ne daf ñëw gunge ci caravane bi muy le général Moussa Ba mu ne tey du nekk général tey nervi lay doon loolu engagement lay wane pas-pas lay wane day wane ne kii sama jëmm ji li muy xeebu xeebu jaral na ko bakkanam kon Bébé Correa dalal leen seen xel ñun de suñu xel dal na la jeunesse Habib sama xol sedd na nañ ma yóbbante nuyoo ci maam baax nañ ma yóbbul sama nuyoo aussi ci coordonnatrice Ndeye Fatou Sarr sama seex sama jumelle tey xam naa ne kontaan na ndax Ousmane Traoré mi ngi fii nekke fi nekkin boo xam ne moom rek la fi noonu nekke tey Pape da dangaa def loo xam ne yombul waaye lu sa sa mérite la tey ñi ma tudd ñëpp kenn ku ci nekk mérité woon na ma tudd ko ñoom Mati Bey ñoom Leena ñoom seen Fàllu ñoom Matar Dieng kenn ku ci nekk tey ñu jox ko cëru responsable am ndax ñu bëri ci ñoom summi woon nañu seen i cëri responsable nekk sama sécurité summi nañu seen cëru responsable nekk samay communicant summi nañu samay cëru responsable nekk ñoo xamante ni si ñooy nekk ci kanam ne balaa ñu laa laal dal suñu kaw ñoom Papis ñoom Momo Sall ñoom Momo Niane Malal Diallo fatigable le directeur de campagne campagne bi mu déroulé woo ñii mu déroulé le marin le mérite te revient à toi Malal Mamadou Niane sama xol sedd na si yow Pape Ndiaye nekk trop responsable da nekk jeune engagé Ibrahima Kane Ndiaye bay laxatu bi mënoo nëbb ba doo feeñ Baye Fall vérité gis nañu la gis nañ ñëpp tey Assane li mu def nii wax na ko ànd nañ lu yàgg ci campagne muy nëbbutu nanguwu la wane boppam waaye tey il fallait que mu wane boppam Hamidou aussi bi muy ñëw dafa indaale sa jeunesse engagée la jeunesse engagée de Hamidou Ndao indaale ses amazones waaye nag indaale sama waykat mu def prestation bu rafet vraiment tey xol yëpp sedd na jàpp naa ne bii nii mu mel jaadu woon na tey Gora Fall jël fi kàddu ndax engagement am ndax pas-pasam ndax nekk responsable fii ci gox bi waaye Gora su ma jëlee kàddu Pape Daouda jël kàddu day mel ni moom jël na kàddu you do the vibe, bi ñuy clôturer campagne bi ñëpp lañ war a gërëm waaye nag dañu war a beral loxo jigéen ñi dañu war a beral loxo jeunesse bi. incident yi am démb ba papa am ci lii mu ci am. Habib am ci lii mu ci am Assane mii am ci lii mu ci am ak yeneen jeunes yëpp dafa waroon nekk rek firnde ci seen engagement ak seen taxawaay daw leen benn yoon daawi leen benn yoon lépp nu mu laaj joxe ngeen ko ba campagne bi jeex joxe ngeen seen doole joxe ngeen seen xam-xam def ngeen ci lépp loo xamante ni si mi ngi woon ci yéen ba def ci loo xamante ni mu mënu leen ko kon tey bu ma fi ñëwee fekk fi amilaam ñu bokkoon classe bu trop dama koy bëggee ñëw fekk fi aussi aw may xaw noo def ba jinne jooju ñëw fii ñoom Nabou Diatta vraiment tey ñëpp la war a gërëm babakar comme mënu maa tudd jeunes yëpp yow nag ma beral loxo jëlal jeune yëpp rek Alioune Ndong ñëpp ñëpp nuyu naa Serigne John toute la jeunesse waaye nag Euh, su ñu nekkin dafa neex ci campagne bi ndax nag bu ñuy xëy di dem campagne dañuy daje dal di def symphonie ñun ñëpp ñu àndandoo ci benn sympathie particulière ndekkeendoo dem dugg ci terrain bi bu bëccëg jotee ñu ñëw ñoom Kara Faye teral ñu Kara Faye Mama Ba Nogay Jéey ak ñi doon nekk si waañ bi yëpp xam leen ni ñëpp kontaan nañ si yéen ñu benn yoon ci campagne bi maruñu benn yoon ci campagne bi te it ñu lu naqari ci campagne bi responsable yi nii kenn ci ñoom daanaka du nekk fenn fu këram waaye Karo na ngeen xam ne ñii ñeme nañ leen bu ñuy lekk duñ ci am benn arrière-pensée dañ ci lekk ak envi dañ ci lekk ak appétit dañ ci lekk ak xel mu dal pourtant ay kilifa luñ bëriwul wala boog néew na. su amee li ñu lekkee feneen fu dul seen biir kër Abdou Aziz xam naa sa sedd na ndax lii rek nga bëggoon nam rek nga ñu bëggal moo tax mu jaral la lu nekk nga summi sa yëre yëpp nekkatoo délégué nekkatoo responsable militant nga doon sama wet te ñu bokk lépp ànd lépp defandoo lépp bu la neexoon yëkkati say mbagg mu soo koo def suñu wet da ngay nangoo wàcc ci suuf te pourtant nag mën sama sëriñ nga tax xam nga ko ak laay Seydou nii laay saytu yéen jeunesse bi ak amazon am yii na ngeen xam ne bu lii mu sol nii tey gëj na koo sol pourtant ku mën a sañse la te bëgg ko di taalibe Cheikh bëgg sëñ Babacar xam nga taalibe Cheikh dañoo mën a doser xam nga taalibe Cheikh yi dañoo mën a doser ndax dañuy sañse lu neex sol par yor bu neex bu ñuy dox di dox ndànk ni ko sëñ Babacar daan defee. waaye bu nekkee si terrain bi jiin bu dang lay sol sol bodi ku ko gis daw may nuyoo si nag samay doomu bopp may nuyu samay doom su ma waxee samay doom xel yëpp dina dem ci Mbaye Fall su ma waxee samay doom xel yëpp dina dem ci Mamadou mi nga xam ne tey jii mi ngi fi woon su ma waxee samay doom xel yëpp dinañ dem ci Modou Ndiaye donte sori na fi su ma waxee samay doom papis nañ ci boole laay Seydi nañ ci boole Lamine loolu costume boobu lay sol na ci boole Papis Seck nii ndax li muy doon doon sama jarbaat mbubb moomu lay sol da ngeen ci boole Mbène Wade da ngeen ci boole Soda Top da ngeen ci boole ameen njaay da ci boole Fat Seck da ngeen ci boole Mairie ndax nag Mairie Pape Daouda kontaan na ci yow Pape Daouda amoon na benn liggéey buñ ko dénk mu di ko liggéey ak beaucoup d'efficacité waaye Mairie ñaa liggéey na ci lu am solo mook équipe ci àndaloon lépp may mun a maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp jeunesse bi di bëgge ñoom bu ndaw di bëgge madame Mbacke yéen ñëpp mën naa leen tudd te war naa leen tudd nag kenn ku ci nekk benn par benn tudd soldaaru Bamba ndax moom it moom it taxawaay boobu la taxaw ñëpp rek vraiment ku ma tuddul xamal ni ñu ma tudd yóbbaale leneen fan yii Ndeye Gueye day ñëw Abdou Gueye day ñëw Pa Abdou bili day ñëw taxaw sama wet mais nag bu demee nii tamit yaa ma xam naa xam naa ne sama sécurité rek ngay xalaat waaye tey kenn duñu laal général dafa ñëw dalalal sa xel bii jàll xanaa gisoo ko ni muy bondee ci ginnaaw tey kenn duñu jege Pape Daouda Samir dafa lu mu wax sànq ne loo nekk mi ngi ci nekkandoo ak yow donte mënul engagé wu en politique ndax ci li mu nekk nga nangul ko ko ñu nangul ko ko mais aussi am na keneen koo xam ne ci loolu la nekk Sabir ndax nekkoon na ci lii sosoon ko tey jii yàlla dogal mu nekk président directeur général muy Alioune Ndiaye Alioune day sama xarit bu ko bëggee nëbbit du mën a nëbbu ne sama xarit la mu yor média taxaw nag à équidistance góorgóorlu na ci lu mu mën ndax daf koo jël dégg ko ay professionnel ñuy liggéey liggéey bu set wicc waaye nag ku mën ñëpp nit ñi ne yaa mën ñëpp ku ci sa dagg yaa xam Alioune Ndiaye def ne Modou Gueye moo mën ñëpp ñeneen ñi ñuy jooy noonu rek la demee Alioune yaa ko wax yaa tey moo tax moo lay wax li ñu daan wax ne la soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor soo ko laalee soo sokolale lalako lalako lalako sokolale sokolale lalako lalako lalako sokolale sokolale lalako sokolale sokolale lalako sokolale

ñu di leen fàttali rek ne défi nga xam ne Pape Daouda lancé na ko yeneen école yi moom ak Laye Seydi défier nañu ko yeneen zone yi défi boobu pour ngeen réussir ko fàttaliku leen ni vote bi ñaari vote la dañuy voter pour la commune après voter pour la ville te ñaari yëpp lañ soxla ñaari vote yooyu yëpp lañu war a gagner à 100 pour cent fii ci Ecole 12 ñaari vote yooyu yëpp. lañu war a gagné à 100 pour cent fee ca école 6 ñaari vote yëpp lañu war a gagné ci CM bi ñaari vote yooyu dañ ko war a gagné également ci école Médina Gounass waa école 27 nag nee na dinañu war a def bi waa Thierno Salim Ndongo nee na kenn du leen ko yombul waa Xalifa Babacar bi nee na kenn du leen ko daam jàng maa ngi lay bëggee masa ñu di leen fàttali ne ñu retiré gu loon seen carte nañu dem ñu retiré ko ñu retiré seen carte nañu rapproché wu de Pape Daouda wala de Laye Seydou ci ñu dëkk fii ci Ainoumane ñu dëkk Médinatoul Mounawwar également mën nañu ñëw ci Pape Daouda wala ci Laye Seydou pour ñu retiré seen carte ñu retiré wu seen carte dëkk Lansar nañu ñëw seeti Euh, May Fall nañ seeti May Fall ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci beneen ba beneen côté bi euh, Touba Pikine nañ seeti Assane Wan ñeneen ñi waa zone moom xam naa ne tëjee seen carte ñoom dañoo efficace. tey jii rek maire Kine Thiam ñi ko dese woon yóbbu yóbbante na pour ñu jëli leen ñoom matal nañ Pam Ndiaye ñu ngi leen di sant tamit yow ak ñoom Ousmane Kandé ñoom El Hadj vraiment seen liggéey ci commission bi. ñëpp rafet nañ ko Mamadou Ngom kontaan nañ Ousmane Sy suñu xol sedd na jëri moo ne yow léegi sa papa ngi nii nangu na la ci mbëjëmbaay dem sa bis ñëpp kontaan nañ ñëpp kontaan nañ Mame Balla suñu xol sedd na vraiment bu góor yaa tudd ñëpp ndax doon na jaadu coono yi ngeen daj kenn ku ci nekk ju jaar ci suram kaaw mais ni ngeen ma ko jégal xam ne temps bi moo ñu njatt instant bi war nañ clôturer Alassane Babar yow aussi nga xam ne tey jii li nga xam ne moom lañ programmé woon mooy suñ jugee fii daal di nàmmaat daal di dem wango ji waaye yàlla dogal mu am ay problème sécurité ndax xam ngeen ne la violence c'est l'arme des faibles ñi nga xam ne xam nañu ne duma nañ leen ba toog seen kaw ñoom ñooy user de violence te ni ma koy waxee violence boobu li tax ñun ñu koy daw mooy bu amee man duma ci gaañu ndax balaa may taxaw di résister ñoom laay seetlu ñu may patam patamee dugal ma sama oto violence su amee xale yii ñoo ciy gaañu ak jigéen ñi te man samay ngor mayuma may nit di jug këram ngir man ma koy exposé buy gaañu lii moo tax ñuy daw violence kon ñi nga xam ne ñi ngi user de la violence nañu xalaat ne su doon seen doom ñoo nekk ci mbooloo mi duñ violenté kenn nañu xalaat ne su doon seen jarbaat ñoo fi nekk duñ violenté kenn ñun nag xeexuñu xeexluwuñ waaye nag nañ am fulla yi suñu bopp bu ñu teelee voté ji ba pare jeunesse bi yooyu leen laay waxal foofu bu ñu teelee voté ji ba pare nañ def deux équipes benn équipe bi mooy dugg ci koñ bi di génn nit ñu di leen yóbbu ñu dem école di voté beneen équipe bi mooy taxaw ci alentour école bi sécuriser ko ndax nag ñi nga xam ne seen yaakaar jeex na salteel rek lañ jàpp ni moo leen di may dara salteel kese waaye nag fii jidda caaree kaw nit juddoowu fi di ragal ragal yeewoowu fi kon ñun xam nañ ni ñuy def xam nañ ni kenn mënuñu xooxatal foo bawoo Modou Gueye fo ma woo ma wii si la fo ma woo Modou Gueye fo ma woo ma wii si la fo ma woo Modou Gueye fo ma woo ma wii si la Modou Gueye fo ma woo ma wii si la. Wajibé. yow ak Ndeye Niang ci faamu Sessène yëpp ngi lay yóbbante nuyoo ci Ndiaye Jabira euh, soxna Aïcha Aïcha waaye xelam ak xolam yëpp mi ngi fii moo tax euh, El Hadj Malick ñëw na si jotaay bi soxna Mboose également ñëw ay sa tala wax naa ko sànq vraiment bëggoon naa tudd lépp Sam yow aussi maa ngi leen di yóbbante nuyoo aji ko dox naa ko nuyu naa ñëpp rek vraiment pour mu gàtt grand Modou ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di bëggee bu baax eh borom ceeb bu dex bi ñoo ma la fàtte manam Ndiaye du ma la fàtte neex ceeb sama xol sedd na trop vraiment ci taxawaay bi ni ngeen taxawee sama seex bi vraiment man ngeen ko defal maa ngi leen ci sant maa ngi ciy jërëm jërë ngeen jëf campagne bi tëj na dimanche ñu door leen ba damm leen ñëw fii seere ko incha allah rabbi tas yaakaar ne si jur nga ñu sagal nga ñu lu ñu bëgg defal nga ñu suñu soxla fajal nga ñu suñu yaakaar nga ñu suñu ndaanaan ji de caara yoo la am nga suñu ndaanaan ji de caara yoo la gëm nga suñu ndaanaan moo du koy am nga fit am nga jëm nga taskatu yaakaar moo du koy moo du koy ee eh. waajal ki nga bëgg dëgg moo candidat moo tax Macky yow la tànn pour nga doon suñu maire am nga fi te moo caaxaan waa caara ñoo la bëgg te doon suñu maire bu dul yow du doon keneen ñun yow la ñu bëgg yaay suñu wéruwaay alek mag bëgg nañ la ñun yow la ñu bëgg koo wax mu ne moo du doy gudd faral nañ la wér gu yaram yàlla mottali nga jëm dangam suñu xool yow la tànn waa soxla boo la ko nga fajal ko nag dara ñu suñu mairie wóolu nañ la lu mu métti métti duñu daw dañuy dem si kanam amul lépp lu mu dem ne li bëgg dëgg moom mooy kan Modou Gueye Modou Gueye eh wàccale ki nga bëgg dëgg moom mooy Modou Gueye Modou Gueye eh sa bëgg dëgg yaakaar nañ si jiw bi ñu xamal leen li ñu bëgg defal ko ñu suñu soxla fajal ko ñu suñu yaakaar yi suñu ndaanaan jiite caare yi la am suñu ndaanaan jiite caare yi la gëm suñu ndaanaan moo dugg am nga fit am nga jëm yaakaar moo dugg ci yow la tànn pour nga doon suñu maire am nga fi te amoo caaxaan waa caara ñoo la bëgg te doon Bienvenue sur Salam Vision.